mu ne ñoom ñoom ñi nga xam ne ñooy njabootu Sëriñ Tuubaa gi ak sëriñ si nañ xam li leen booleeg taalibe yi weesuut Pastef kenn gëmuñu ci xam naa kenn gëmu leen ci nee na Sëriñ Tuubaa rek lañ gëm moom loolu moom wér na mu ne amu ci kenn koo xam ne jéblu nga ci nit ne mën na laa ram boo kon yow mi sëriñ bi boo ko bëggee jàppee koo xam ne daanaka ab jaam boo ko bëggee jàpp koo xam ne daanaka ab jaam nga ko jàppee. loolu njuumte la ko gën a ñoo andewu ñoom ñoom noonu. waruñoo àndeeg ñoom noonu. ndax képp ku jëbbu sëñ Tuubaa. ku jëbbu sëñ Tuubaa. sa coobe rek nga ko defee. sa coobe rek nga ko defee. Cheikh Ibra kat. Cheikh Ibra kat. bi muy wane ni ñu war a toppi sëñ bi. bi muy wane bi muy ñu war a toppi sëñ bi. sëñ Mustafa xëy na toogal leen mu suuf. mu ne sëñ Tuubaa kenn toogal ci suuf musta wax kenn déedéet ma su jootal. musta wax kenn déedéet ma su jootal. musta wax kenn déedéet ma jox seen alal. musta wax kenn déedéet ma jox seen alal. Cheikh Ibra ko fi indi. kon nag loolu. kon loolu. nañ xam ne coobare la. loolu coobare la. ak taalibe du njaam. ak taalibe du njaam. du nguur itam. sëriñ bi itam nekku ci nguur. du doole itam. du doole itam. ndax li tax mooy. ndax li tax mooy. boo demee ci tool ci archive yi. boo demee ci archive yi. da ngay eh, bi ñuy xeex yoon wi. bi ñuy xeex yoon wi. wax ko a ba du màgg. ak niñ ko war a baare ba du màgg. ndax booba yoon ni muy jugee jaaxal na leen. ndax booba yoon dox bi jaaxal na leen. ku ko mu ne ku dem ci archive da nga ko fa fekk. ci biir wax ja ca biir wax ja. da ngay dégg ñaan murid gi daal niñ ko gisee. da ngay dégg ñaan murid gi niñ ko gisee. daa mel ni ak nguur gu del si waat. daa mel ni nguur gu del waat. waaye nag wute naa nguur. waaye nag wute naa nguur. ndax buur yi ndax buur ñoom. dañ daan forcer nit ñi. dañ daan forcer nit ñi. ñii nag ñoom ñoo ko defal seen coobare yi bopp. kon ñun taalibe nañu xam ne nañu xam ne. nit ku ne nit ku ne. responsabilité boppam la. responsabilité boppam la. ku amatul taalibe it. ku amatul taalibe. loolu mbirum boppam la. mbirum boppam la. waaye jëru forcé. déedéet jëru forcé. afa anta tukrihu naasa. waaw. xataa yakuunu mu'miniin. Mm-hmm. suñu borom nee na. suñu borom nee na. ngëm kenn du ci forcé kenn. mu ne ngëm kenn du ci forcé kenn. kon yoon wi nañ xam ne. kon yooyu nañ xam ne. du doole. du doole. du doole état. du doole état. du doole du doole nguur. li ñu am nag moo doole nguur ak li am nag nun moo ëpp doole nguur ak état. ndax du fi jóg du fi jóg ba muk te kenn mënu ko yàq. te kenn mënu ko yàq. dara mënu ko mab. dara mënu ko mab. la sëñ Abdoulaye waxoon Abdou Diouf ne ko. la sëñ Abdoulaye waxoon Abdou Diouf ne ko. sa doole ji. sa doole ji. dafa sondax ci doole sëñ Tuubaa ji. dafa sondax ci doole sëñ Tuubaa ji. ndax boo boo soxla woon junni nit. boo soxla woon junni nit. ma soxla junni nit. ma soxla junni nit. man nga koo am ni ma ko amee. man nga koo am ni ma ko amee. waaye waaye Amina du bokk. yow boo soxla boo soxla woon junniy nit. dañ leen jox paas. dañ leen jox paas. dañ leen jox lu ñuy lekk. dañ leen ñuy lekk. te buñ dikkee dañ leen wax li nga leen te buñ dikkee tam da wax li nga leen doyee de. man nag bu ma doon ko yaakaar Sëriñ na ñëw. bu ma doon ko yaakaar Sëriñ Tuubaa na ñëw. kuy ñëw kuy ñëw. yaa indi sa bopp. boo dikkee la ngay lekk yaa ba ngay boo dikkee la ngay lekk yaa koy indaale. te boo dikkee da nga ma dara. boo dikkee da nga ma nuyoo dara. loolu du fi jóg du kon nag le bu ñu bëggee lu ëpp loolu nag xamu ko. bu sëñ Abdoulaye daana wax ne. <laughs> sëñ Abdoulaye daana wax ne. ginaar guñ la may. ginaar guñ la may. genn ginaar guñ la may. président France sax mënu ko am. président France sax mënu ko am. bu lekkee ginaar moo ko jënd. bu lekkee ginaar moo ko jënd. Ah, moo ko jënd waaw. loolu mat naa xam jërëjëf Mbacke.